alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddalin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin miftahi rishil lilalamin min al'adami ila alwujudi alfatixi lima ughliqa walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadri wa miqdaari alazim mbokk jullit yi mbokku réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullah tafsir abdurahman waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilahi rabbil alamin allazi xalaqa al insana wa allamahu albayan walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alxalqi sayidi alawalina wal axirin sayidina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaa'i wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam Chérif ñu ngi lay nuyu. jërëjëf di nuyu mboolem téléspectateur yi seetaan émission bi di seen suukaru koor. Mhm. fii ci 2STV. Mhm. di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yal nañu yàlla defal dégg ak topp. ren dañu ñëw ngir lan jikko yi. Mhm. ndax lan dañu ñëw indi feebar yi nga xam ni mooy gane si xol yi Chérif. feebar yooyu di gane si xol yi ñu ngi koy lim. benn par benn mhm. indil nga mbokki jullit yi fa tabaarakallaahu ay feebar yu bari mhm. waaye indil nga leen ay saafara yoo xamante ni mhm. feebar boo indi indi nga solution bi koy yóbbu ndaxte Chérif julli gu bari gi baax na de jàngale julli baax na ñiy jàngale julli fa tabaarakallaahu li ñuy def baax na macha allahu niki suñu mbokk Iran Ndaw ak yeneen ustaas yi ñi nga xam ni ñooy jàngale nu ñuy woore nu ñuy ajee macha allahu fiq bi baax na torop mais fokk ñu xam ni julli gi du pour julli rek mën nga julli mën nga tari tari yu neex mën nga toogaayu julli mën nga taaya mën nga lépp mais julli du caa génne loolu rek julli lan la inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli li ko tax a jóg mooy day teree def nit lu bon day teree def nit lu ñaaw kon ndekete julli dafa jóg pour defar xol Chérif ndekete doomu aadama yiy jàngal nit ñi nan la ñuy woore koor gi baax na de mais ndekete man lam yadaa qawla duur wal amal fa laysa lillahi xaajatan an yadaa taamahu wa sharaaba koo xam ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na bàyyi woo wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw suñu borom subhaanahu wa taala amul soxla ci sa koor gi muy ñàkk lekk geeg ñàkk a naan gi sharif fa man farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lhajji ko aji màkka suñu borom subhaanahu wa taala nee na bul wax waxi caaxaan buy wax waxi saay-saay bul xuloo kon ndekete aj dafa ñëw pour faj feebaru xol yi mooy dafay defar jikko Cherif Azaka xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha ndekete azaka yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ko yàlla ne jël ko daf ko ni ndaxte da leen di laabal da leen di sellal kon boo jëlee euh, yi nga xam ne mooy ponki lislaam yépp fa tabarakallahu mm-hmm. Mm-hmm. li muy def mooy lii ngay jàngale mooy lay def moo tax ren ñu jël ñu tànnal mbokki jullit yi ci sa xalaat fa mm-hmm. tabarakallahu indil leen feebari xol yi waaye indil leen saafara yi yaa ngi woon ci feebar yooyu nag fa tabarakallahu gannaaw ba nga rombee ya nga romb dama koy bañ a lim di yóbbu heure bi yaa ngi woon tey jii war a tijji beneen feebar bu ñuy wax alkibru Chérif lan mooy alkibru ak loo ci indil mbokki téléspectateurs yi wallahi tafsir muy rëy mhm. alkibru rëy rëy nag yàlla nee na mbubb la boo xamante ni sama mbubb la mhm. keneen ku ko sol mu ëpp la te boo solee mbubb mu ëpp dalay dangay ngay faqastalu te yàlla moom rek moo yeeyoo rëy te gis nga nit ñàkk xam boppam moo waral rek muy rëy waaye nit ku xam boppam di nga toog sa palaas góor ga dafa woo doom ja ne ndax xam nga sa bopp mu ne ko waaw waaw ak maa xam sa bopp sama bopp mu ne ko yaay kan mu ne ko maay diw diwoo ma jur diwoo ma jur bëgg dem ba ci yonent bi baa ji ne ko déedéet doom da nga réere sa bopp xamagoo sa bopp ndax xale ba dafa amoon 17 ans âge de puberté war a toll nag fu muy gisee boppam ndax xam nga âge boobu âge bu yéeme la mu ne ko doom xamaguloo sa bopp xoolal baay bi nu mu conseillé doom ji ne ko doom kaay mu wax la yow yaay kan mu ne ko yow sa cosaan toq ma ni yu la woon bu matul woon nëpp <laughs> sperme excusez-moi bu matul woon nëpp dugg sa biiru ndey di neen yàggul dara nga juddu di nenne du yàgg dara nga taxaw di nit du yàggat dara nga tëdd di néew neen nenne nit néew yaa ngoog nit a ngoog kon nit bu xamee boppam rek réglé réew mii nag di Sénégal tey <laughs> tafsir nañu xoolaat suñu bopp fii tey koo fi mën a gis ñëpp lijjanti nañu ba bokk nañ ci yax bu rëy man réew mi musuma dajek nit mu ne man ci yax bu sew laa bokk man musumaa gis ku taxaw ni man ci yax bu sew laa bokk ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bu rëy lañ bokk waaye ndekete yàlla moom gisul loolu ndax ñun ñëpp ay jaamu yàlla lañu ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay kuy suñu baay maam Adama kuy suñu ndey Seydina Sittuna Hawa muy Awa Adama ak Awa ñooñu ñooy suñuy ndey ak suñuy baay ndax ñoo jur mbooleem nit yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci kaw suuf kon nag kenn gënul kenn ki gën ci yéen yàlla wax na ko inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ragal ci ki gën ci yéen mooy ki gën ragal yàlla mooy ki gën a baax moo gën ci yéen kon mbir mi newul fenn ba ñuy wax nag naan booy ànd àndal ak sa nawle hee kuy sa nawle tafsir àddina bi ku fi yàgg tuuti gis lu bari mm-hmm. te ku gis lu bari xam lu bari mm-hmm. ñaata nga gis ñu falu ñaata nga gis ñu folleeku nga gis leen mm-hmm. ñaata nga gis ñu am teraanga bu dul jeex ëllëg ñu ñàkk lépp ñaata nga gis ñoo xamante ne amuñu woon dara tey ñu am loo xamante ne amaana seen sët sax dootuñu ñàkkaat àddina bii ndomb tànk du sa nawle sagu zahir la baax na àddina bi juddu du sa nawle ndax juddu sagu zahir la di way sa baay di way sa yaay ñu amoon lu ñu def ci réew mi ñëpp di la ormal ngir sa wala di la ormal ngir sa yaay boobu loolu sagu zahir la waaye ba tey du sa nawle alal du sa nawle ndomb tànk du sa nawle juddu du sa nawle nit kan mooy nawlem jëfam ju baax moom mooy nawleem kon nit booy ànd àndal ak sa nawle sa nawle mooy sa jëf ju baax jëf ju baax jooju ngay jëf ci kaw suuf ñëpp bëgg la ñëpp di la ñaanal yàlla nga yàgg fi te boo génnee àddina ñëpp lay jooy ndax lan sa jëf ju baax jooju nga jëf kon tafsir rëy defe naa ni war nañ ci mën a taxaw tuuti am luñ ci waxtaan ñun waxtaan bii ñuy wax nag ci suñu bopp lañ ko njëkkee baaxuñu de waaye billahi wallahi tallahi bëgg nañu baax te bëgg nañu ñu baax ba tax na nag yàlla itamit moo ñu digal ngir lan ñuy digle lu baax tey tere safaan tafsir abdourahman barakallahu alkibru muy rëy fa tabarakallahu shérif yal na la yàlla fay amiin bokk na ci feebar yi gën a bon mooy mm-hmm. rëy mm-hmm. parce que mbooleem bi ñu classé yi gën a bon ci mbooleem feebar yi nga xam ni mooy dugg ci doomu aadama ci njullitam mm. ci ngëm yàllaam dañu jël ni rëy moo ci ëpp doole parce que boo xoolee iblis ku ko gën a bon amul te iblis li ko dat yëpp li ko yóbbe mooy rëy mm-hmm. iblis dem nañu ba ni egoon na ci jaamu yàlla foo xamante ni moom la nekkoon ca kaw mm-hmm. amul benn sebre lu tol nii nga xamante ni boo doon meetare lii mm-hmm. amul lu tol nii loo mën a teg nii te dooni iblis su jóot na fii sujjóot fii kaw su fépp sujjóot na fa kaw asamaan fépp sujjóotal na fa ngir màggal yàlla subhanahu wa taala mais gis boppam suñu borom subhanahu wa taala ne ko iblis ni malaaka yi sujjóotal leen aadama mm-hmm. illa moom nag bokkul woon ci malaaka yi mm. moo tax illaa boobu borom xam-xam dañ koy firee illaa istisna munqati lañ koy mm, wax mm, doo ni illaa iblisa fa sajadu ñu sujjoot ñoom malaaka yi illaa iblisa ba mu des iblis ndax boo ko defee istisna rek yem ci dafay bokk ci malaaka yi te moom du malaaka kon naga naan fa sajudu sujjoot nañu ñoom malaaka yi illaa iblisa waaye iblis nag moom la ñuy wax istisna munqati ci grammaire moom day abaa bañ na lu tax wastakbara rëy rëylu na kon dafa rëy mhm. rëy a ko dugg ci beneen aaya suñu borom subhanahu wa taala naan kaana minal jinni moom bokkoon na ci jinne yi mhm. mais nag jaamu yàllaam moo waraloon suñu borom subhanahu wa taala dugal ko ci kooru malaaka yi mhm. ngir lan mën a jaamu yàlla moo taxoon yàlla dugal ko ci koor bi mais kera ba ko suñu borom ne ni malaaka yi yéen ak ñi bokk ci yéen ci même koor bi su jootal leen aadama iblis dani du ko sujootal suñu borom ni ko lu tax mu jël baaraamam dóor ci dënnam mm. ni ana xayrun minhu xalaqtanii min naarin wa xalaqtahu min tiinin maa gën aadama mel ni suñu borom da ko ni loo ko gënee mu gis matière ni ko yaa ngi ma bind ci nee nañu min nuurin la doon bëgg a wax yàlla mbéj ko mu ni min naarin ci safara ndax booba dañu ni min nuurin lu nuuru sayyiduna muhammad la doon bëgg a wax mooy leer waaye ba ko suñu boroom mbéjee nag mu ni min naarin yaa ngi ma bind ci safara waaye wa xalaqtahu min tiinin aadama yaa ngi ko bind ci ban tàmbali naa gis ni safara moo gën a riche moo gën a fort ban waaye ba mu defee loolu nag suñu borom subhanahu wa taala ni ko kër gii nag rëy rëy lu amu fi kenn mooy suñu borom subhanahu wa taala man tawaadaa lillahi rafaahu llaahu wàcc rek a fi am ku wàcc nag ma yëkkati la waaye ku rëy déedéet mhm. safara rek nga jëm mhm. moo tax léeg lekk ñu joxe ci misaal mhm. dañu ni même boo xoolee rëy bon gi mu bon dem na ba ci maara day taali sa néeg bu dee lakk lépp mën na sauver mais armoire ba day lakk ñu ne lan moo waral muy lakk ñu ni diis ga mu diis rëy ga mu rëy moo waral muy lakk mbubb yaag mbaxana yaag dàll ya da ngay jël rek di sànni ci biti mm-hmm. mais comme moom kenn mënu koo sànni ngir mm-hmm. dafa diis moom fa nekk ba lakk ga fekk ko fa sapeur bu ñu teelu la ñëw boo maytul bant ya day lakk ba jeex mm-hmm. kon Chérif rëy bokk na ci feebar yi gën a bon ci àdduna mais nag léegi dafa bari Sénégal te yàlla nee na yaa yuhannaasu inna min zakarin wa unsa wa jaalnaakum na akramakum inda allahi atqaakum inna allaha alimun xabir suñu borom bu demee ba ni yéen nit ñi yéen ñëpp yéen a bokk fu ma leen binde ci aadama ngeen jóge awa awaa mhm. maa leen def ay population mhm. maa leen def ay giir populu européen yi africain yi asiatique yi maa ko def suub mais maa ko def qabail mu doon ay giir nga ñëw Afrique fekk fi pël yi tukkulóor yi joolaa yi olof yi loolu yëpp dama ko def li taarafu pour ngeen xamante mhm. waaye nag yonent bi salaay salaam firi ko ni arab gënul ku arab der bu weex gënul der bu ñuul der bu ñuul gënul der bu weex arab gënul ku dul arab mhm. ku dul arab mooy ajam gënul arab ñu ni lan mooy gënante mu ni inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a baax ci yéen ki gën ci yéen ki gën a tedd ci yéen ki gën a rëy yax ci yéen comme ni ngeen koy waxe yax bu rëy mooy ki gën a ragal yàlla waaye bañ ko gis sa bopp moo tax ragal yàlla sax yonente bi salaay salaam bañ ko laajee nu ñuy xamee ko ragal yàlla dani at taqwa nag haahuna wa yusiru ila sadrihi dani ragal yàlla nag fii la ne di junju dënd bi moom nabi mhm. damay wax ni lu ñu filmé la defe naa ni techniciens yi ñoo may gën a xam li may wax mm-hmm. bu ñu ko filmer mm-hmm. def ko ci carte mémoire mm-hmm. te defaguñ ko def ko ci lecteur bi te amul ecran bu koy wane yow mi ko filmé wul fekke woo bañ koy filmé boo waxee ni nanga ma ne ci film bi da ngaa ñeme yàlla waaye xamoo ko suñu borom moo filmé li ci xol yi mu ngi ci lecteurs yi muy ragal yàlla yonent bi nee na bi xasabi mri'in min acharri an yaxqira axaahul muslim ki yées ci jullit yi mooy ki gis nit xeeb ko ngir jàpp ni moom moo foor kii dafa ndaw yàlla nañ yàlla musal ci rëy defe naa ni tijji nga tem bi tey ay dara inchaa allahu bu subaa ñu àggale ko bu dee xaj na fi da defe naa ni waxtu wi jeex na fa tabarakallahu ziyaar bu baax ndokkeel la bu baax ci koor gi waaye jotal la nuyoo ak ziyaara suñu jigéenu bopp xajja Yaasin Ndiaye ak borom këram alxaaji Daam Fall ñaan yàlla sàmm leen aar leen ak Fallu Ndiaye Fallu Ndiaye macha allah ak awa ak awa awa Ndiaye suñu jigéen boobu madame ñan bi xasabi mri im min acharri an yaqira axaawul muslim yàlla nañu fekke suba bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bnayhim sibtayni a'lamil huda wa bi sahbihi wa tabi'ina lahum fa hum sadatuna ahlul makarimi wan nada ay dara jërëjëf xaali Ousmane ah, rëy bii nag man bëggoon naa nag nga defal ma ci exception mhm. defal ma ko ñetti émission sax mhm, incha allah parce que bëgg naa nga dolli ma ci yeneen ñaar parce que waaw laa tatakabbar waaw wala tatajabbar wallahi innaka abdun lasta bi shay'in wallahu akbar est-ce que incha allah jërëjëf ay dara عليك يا